li ci yenn kaay yi li ci yenn kaay yi jox leen ma xel yi te ngeen déglu maag noppi garme yi ma daal koy door ak bi njàngum Sénégal mi ngi xëy di gënti dellu ginnaaw moo raw ku doon féey te takk ay mool di xamal ne a loolu dañ ko war a seetaat bu baax a baax leneen luñ war a seetaat kay mooy fast track bi nga xam ne dañ ne woon mi ngi dox nañ waxe woon noonu la war a gaawe gaawe wuñ noonu syndicaliste yi di xamal ne mbir demewut noonu daani si si du quotidien diñu xamal ne loolu waxi politicien rek la Alioune Sall mi gannaaw teewul pétrole bi beneen yoon tur mamel bi ñu ngi ko ci tuumaal ma nga ca l'observateur du journalu groupe Futurs Médias dikkaat ci leneen ci njiit réew mi baal gi muy baal ñi nekk ci kaso bi Khalifa Ababacar Sall ñu ngi ci tànk baal ko yéen ka daal di laaj ndax ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso yi te néew doole ndax dañoo bokkul ca loolu Ababacar Kanté bokkoon yëkkat ci ca laas yéenekaay yi jamono ji nag source a yéenekaay di ñu xam ne ne ko rap Sénégal bi yokku nañ ko néew ju doole yi a dee ñu xibaar ne Sénégal lu toll ci juróom-benn fukki milliards te da ko nar a yi sénégalais yi étug yéenekaay moom daal yi nekk fa nekk jafe-jafe yi ñu àndal maa nga ca tàggat yaram am nga xam ne moo maa nga ca làmb ja diggante am seen ak ki nga xam ne moo di Modou Lo open press bi nga xam ne Modou Lo doon na ko def ma xam ne ne ki nga xam ne moo di Eumeu Sène dina ko wal ba mu mel ne dege-dege parcelle na seen xel dal wal fajiri di ñu xamal ne taw bi nga xam ne amoon na niki démb bari ay tata waaye tamit ñi nga xam se ne ñoo ci ñàkk seen bakkan ba fi nga xam ne si ne moo di Mbàkke sax am na ne courant moo ko maas ba ñàkk na bakkanam ba nag maa ngi daw seelu ji ba suba jàmm